bisimilah onze billah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, madame la ministre chers collaborateurs des ministres chers collègues je vous salue euh, madame la ministre euh, maa ngi lay nuyu bi ma bootee ci ginnaaw samay loxo jëm ci présidio bi rek ku ne xam na ni kër sëñ Abdou Lahad laa dëkk du ma gërëm ku ma defalul dara loolu leer na yàlla yàlla fay la yàlla yàlla yàggal la yàlla yàlla taxawal la defaloo ma ko man waaye fa ma dëkk di sama dëkk dem nga fa suqali jigéen ñi jàppale leen bañu taxaw te kaw la mënoon nga leen a fàtte waaye nag foofee nga dëkk te fa ngay sëy yaa ngi def yaa ngi koy defee ni mu waree te yaa ngi leen di jàppale yóbbante na ma muy sama askan di jëmatil njukkee kajoor ak farboot ak ndéeg ak foo bëgg a dégg ñépp a ngi lay sant madame la ministre ñëw naa dikkati naa waxati naa nañ waxtaane àdduna madame la ministre dégg naa léegi samay préoccupation ci ginnaaw raay jël nga ko ñaari yoonu defe naa le nom de ginnaaw raay a retenti mille fois ci commission yi ci sama gémmiñ donc ginnaaw raay nga ñuy taxaw di wax ni jërëjëf ci jël bi nga leen jël en considération loo fa def doyul foofa mooy précarité buy taxaw maanaam li ñu doon wax naan man euh, euh, social la ambulante waaye foofa ginnaaw raay précarité buy taxaw la social ambulante lañ loo fa def rek doyul répondre woon nga ma ci sama requête mais wax dëgg yàlla madame le ministre damay wax toujours ni sa budget du doy nañu xam ne comme ku yokk cere dolli ñeex yow nañ la yokkal rek ngay defar jigéen ñi madame la ministre wax fa dëgg yàlla dama am ñaari préoccupation yoo xamante ne il faut ma waxtaan ci ak yow madame la ministre ngay jigéen madame la ministre ngay yaay madame la ministre ngay yiir jigéen ñépp ñu ne la madame la ministre votel noonu la benn loi pour retrait des enfants dans la rue waaw kay nañ bàyyi boobu waaw madame la ministre lan moo waral ñu bëgg di liggéeyloo xale yi ba ñu egg ci ñun di ñu xañ ay doomu aadama madame la ministre su ma waxee loolu damay daw daanu ci li xew bërki démb daanu ci sama kaw daanu ci la classe politique daanu ci le département de Pikine madame la ministre xale bu am 16 ans le chauffeur jox volant mu jël ko dawal ko wuti ci sama petite sœur rey ko mu am 42 ans madame la ministre retirer tes enfants dans la rue foofu la war a tàmbalee madame la ministre Pikine yépp amu leen naqari tey tey département de Pikine métti lu nañu la classe politique am nañu leen naqari ndax ay aaw mu ñu ñàkk te buñ ko doon jooy ba doyul du dellu si une fédératrice une grande dame une personne boo xamante ne daw na ci ginnaaw mu président Macky Sall ba jeexal takk xale bu am 6 ans 16 ans ray ko kenn du ko tëj madame le ministre kenn du ko tëj parce que dañ naan mineur la juróom benni weer bu passé ñu ne kee moo rayoon yaa njaaye ñeenti xale yi madame le ministre est-ce nan la ñuy def ba garage yi nga xamante ne ku ci dawal ba pare seet xale bu am 16 ans jël ko jox ko sa volant oto mu daw rey nit te du mujj fenn madame la ministre nous sommes écœurés madame la ministre suñu xol jeex na takk ñàkk nañ lu dootul amati mais madame la ministre war na yàlla ak yonent bi loo ci def doyul xale bu ñuy dawal la oto ponkalum jëm ñu jox la permis loolu dama ci rappeler ki nga xamante ne moom mooy ministre du transport mu jël décision ferme ci retirer permis wu ki nga xamante ne moo dawal oto boobu tey madame le ministre damay wax ne damay dellu siwaat ci yow rek waxoon naa ko keroog ci benn séminaire bu ñu boole muy genre genre nag gis nañ ni am na solo lool ci sa budget mais boo ko leeraloon ba ñu gën ko xam moom moo gën ndax suñu réalité yi nga xamante ni moom la ñu am ci suñu Sénégal te duñu ko wàcc donc madame la ministre moi je pense que euh, loolu daal am na ci loo xamante ne mënuma ko woon ñàkk wax tey aw ma woon sax envie wax mais lii daf maa naqari ndax kii ko li ko def ci sa département la bokk madame la ministre je vous remercie